ñoo ko def. ah arde bi la. waaw fekk sama arde la <laughs> wala par yow maa ngi dégg histoire bi. maa ngi dégg ñu naan moom daal arde bi dafa jël benn nag jaay ko ñetti nit ma ne ah ñu ne ma waa bi ma la mais à la suite <laughs> ay do arde te bu nu mu demee. xam nga nag bi. waaw yi ñu ngi koy di jël ci ko ngandal mais di jul ngandi du aji daal dama koy rek mu ni salaamaaleykum yow yaay aar de ma ne ko waaw mun ma nag bi ñaata ma ne ko cent cinquante bi mu nee cent cinquante mille xoola kobbet kobbet kobbet la ma ko jox <laughs> waxuma ngoon wagul suba wagul dara xoola bindal bindal bindal bindal xoolal lépp la ma jox ma def sama poos ci suba si ma defal nag bi ngoon fii may ratoon ne faray pare gu beneen waaye ni ma ànd wandoor <laughs> de nag ma ne ko waaw man la de la garaaw wandoor de nag beneen waaw moom xamul lool xamul lool xoolal noonu ma daal koy jaay mu ne ma ñaata mën ko deux cent mille waaw xam nga ay dox lan du nekkuñu nandi ah, waaw tax ku ne ma yii dong laa tax yii rek laa ñaar voilà bi ma ko joxe mu jox ma coppe deux cent mille dégg léegi ma war ko ko yóbbu ci guddi bi affaire bi guddi oto bi aw ma ko ma kay bi ma suba teel man daal fii may tekkee nag bi bay yàpp ci oto bi waa ji ni daree ni ma yaay ardu ma ne ko waaw mu nag bi nag laa bëgg